ku am loo naqari ak ku am sa jaaxle ak ku bëgg adhérer ci pêche artisanale ci ñoom ngay ñëw ñooñu la recevoir tey kon ma ni muy axlu axlu napp femme transformatrice yi ñëw nañu magay mareyeurs yi envoyé nañ tamit seen ay représentants yu fi ñëw ñoom Pape Ibrahima ngi fii euh, waxtaan nañu déglu naa leen parce que bu ñu la dénkee mbir ne la nañ ci liggéey pour diw diw moom bu ko xalaatal bu ko décidel àndal ak moom ngeen concerté wu waxtaan mën la lii de may liggéey def naa ci ñeent fukki at def naa ci fanweeri at bu doon université am naa ci doctorat ba am ci agrégation ba di ci jàngale yow yaa ngi ciy soogay ñëw nga déglu ko may ko nopp dëgg la am na lettre de politique sectorielle bu ñu président l'applique sas waaye dañuy jéem a fexe en toute bonne intelligence naka lay fexe ba mu kàngamloo ak li nappkat yi di xaar ak waa secteur bi leen la ñuy xaar boo leen dégloo nag nga jël lépp tënk ko wax nañ fi gilet de sauvetage yi tamit muy euh, loo xam ne lu am solo la ndax benn bakkan boo a des ci géej bu yàlla ko yàlla dimbali mu am sauvetage ba sol ko war naa mën a tëmb feeg juróomi une semaine te du ñàkk bu boobaa ay mbokkam seet ko avion yi wër bu fekkee catastrophe marine bi bu buñ ko muy ñu ñu nous avons obtenu 29 000 de l'argent. Cette année, nous avons obtenu 60 000 d'argent. Cette année, nous avons obtenu 100 000 Parce que nous voulons être des acteurs. Mais, mais, mais, mais... Si vous voulez recevoir des sauvetages, le faire. Nous, nous sommes les propres. Il y a des subventions qui ont été décidées. Je vous en 202 millions yoo xam ne nous ñoo ngi ko tas ci biir CLPA yi tas ko ci femme transformatrice yi tas ko tamit ci quai de pêche yi ci seen gestion ba nga xam ne bii dina leen mën a jox benn bouffée d'oxygène ci at mi port de pêche jàmbat nañ ko Sénégal fi mu toll nii war na amaat au moins ñaareelu port de pêche ñoo ngi ciy liggéey ak coopération coréenne ñoo ngi ciy liggéey ak coopération japonaise ñoo ngi xool fan lañ koy def jàpp jàpp nañu ndar ndax dañ koy def goxu mbaaj mais bi mu waxtaanee ak acteurs yi Omar Omar Dieng a ngi nii wax nañ tamit ak Ousmane waxtaan tamit ci ak gouverneur quai de pêche port de pêche li muy laaj ci coefficient d'attraction d'évasion ci camion bu ñu waree traverser biir ndar traverser biir pont bi. war na mën a jiw problème bu ñu koy def gi ko xu mbaaj est dañu aw par gànjool di contourner ba ñu dugg biir ndar wala dañ koy def diggante raw ak paal wala dañ koy dubu kayaar dañ koy yóbbu mbaling dañ koy yóbbu joal dañ koy yóbbu mbuur loolu lépp li ñuy waxtaane la lépp lu ñu ci def rek nañ ko def foo xam ne fi amuñu par parloo mais fan la intérêt bi nekk ak fan la port bi gën a nekk accessible pour tout le monde te waruñu mën fàtte tamit Kafountine Elinkine Cap Skirring yooyu yëpp gox la yoo xam ni war na mérité nañ pour am benn port de pêche